ak restaurant bi mi ngi nekk restaurant boo xam si ne dina am si biir lu tollu ak 228 euh, places yoo xam ne si ne table lay doon mi ngi war a nekk si superficie boo xam si ne surface boo xam ni 700 700 700 mètres carrés lay doon salle bi rek dina jël lu mat 400 euh, mètres 400 mètres carrés si biir it dina am ay local ay local technique mais tamit dina am aussi ay magasin dina am it euh, ay chambre yoo xam ni ay chambre froid lay doon pour ay viande ay poisson aussi tamit am am na ay bureau ndaxte chef ki nga xam ne mooy chef cuisinier bi am na bureau aussi tamit magasin ki nga xam tamit moom mooy yor lu jëm si magasin yi tamit am na bureau loolu mooy li nga xam ne at moom lañ prévoir si si biir restaurant bi mun am pâtisserie yi parce que lépp loo xam si ne nit dina ko ajawoo dañ koy koy koy waajal si si biir restaurant bi ndax te boobaa tamit lu jëm si ndékki añ reer lépp lay servir su boobaa. Mhm. waa liggéey bi je pense que dina commencé fi ñu toll ndaxte signé nañ contrat yi te ki nga xam ne tamit at mooy entreprise bi démarrage rek rek a ko desee at malgré que tamit xëy na li li des mooy ñu préparé kii bi terrain bi te loolu. li ma jàpp du jël ay fan yu bëri kon incha allahu rabbi dina commencé si nu mu gën a gaawee. Hmm. waaw ak durée de nu ko ci discussion bu travaux yi si 10 mois la moom incha allah tamit liñ jàpp mooy bu ñu ko ko tàmbalee si app boobu balaa muy mat mën nañ ko nu ko euh, ko di jot suñu vidéo nag foo si biir réew mi wala si biir réew si Tawfekh Production ngeen mën a jot moo leen vidéo boo xam ne dugal nañ